assemblée nationale di session extraordinaire amal nañu ko ak téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñetti député yu teewa lim bi mat président bi convoqué li nga xamante ni moo di liggéey jëm ci conférence des présidents. il n'y a pas d'observation il en est ainsi décidé la séance est levée. ci biti beneen ambiance moo am lu ko waral nag mooy soppite projet de loi bu soxal constitution code électoral ñu war ko def. ci nu mu gën a gaawee bu fekkee ñenn ñi bañ na ñëw lii di article 87 muy jox dogal président la république daaneel lii di assemblée nationale. dama waxte aw ma ci lu ma leer. assemblée nationale bii ni mu mel nii ku fi ñëw 2024 yaay xool boo xalaatee ne mën nga kon ne liggéey ak assemblée nationale bii nga bàyyi ko continuer liggéey ak assemblée nationale boo ko mënul nga bàyyi ba au bout des ans tel que la constitution le dit. nga décider ko. texte bi duñ ko voté parce que d'accorduñ ci éducation dañu intimider wala pression ou pas. ñeneen. leneen lañ ci wax. dañu waroon waxtaan ci naka la ñuy fexe ba ndóol gi wàññeeku naka la ñuy fexe ba béy bi dem suqaliku donc au lieu ñuy débattre foofu ñu ngi débattre ci ay wax yu xaw a doy moo tax vraiment projet bi moom amul sens. benn parti opposition sax. woote ak dàll. li ma xam mooy euh, euh, conférence des euh, des présidents mi ngi réunir wu dinañ xam effectivement lan moo ñëw assemblée. buñ ko xamee ba pare dinañ ñëw ñoom ku ne wax ak sa groupe parlementaire commission mu dem commission des lois ba lu ñu war a amender ñu amender ko lu ñu d'accord ñu voté ko et cetera c'est comme ça que ça se passe il y a pas péril en la demeure. soppi article 87 bu constitution article bu code électoral. moo indi wax ji li nga xamante ni nag ñoom moom lañ jëlee woon ci dialogue national bi mu ngi waaj a yàqu ndaxte ñii di taxawu Sénégal ak waa PASTEF ñoom nee nañu parewuñu benn yoon ngir dëggal. lu ñu jëlee ci dialogue national bi